ah gars yi na ngeen def mbaa yi nañ ci jàmm mbëkk faal nag moo leen di nuyu boroom yàlla ki si barke man xeam lakk bal baal leen ma àq baal naa leen man xam naa ne yoreel naa leen àq barke man xeam lakk bal yow mii di ma xool yow mii di sama fans fa nga nekk man mbëkk faal maa ngi la fay fekk ni la jàpp sama ñaari lox barke man xeam lakk bal baal ma àq baal naa la àq bon ramadaan yàlla nañ ci dugg ci jàmm ci alhamdulillahi rabbil alamina dugg ci bisimillahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq yal na yàlla def ci réew mi jàmm yal yàlla may jullit yëpp jàmm barke mal xaamal akbar yàlla may ñëpp jàmm képp ku jullit képp koy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah maa ngi lay baalu àq ku nekkutub jullit tamit maa ngi lay baalu àq jërëjëf kontaan naa ci yéen yoreel naa leen àq chaque instant ma nekk ci lii nangam sàngam ngeen may seetaan des fois ma juum di def yenn yi mais maa ngi leen di baalu àq yal na yàlla def ci yu muy jàmm kenn du yéen zem leen commentaire leen partage leen abonnement leen rek abonné leen rek ba kebal xaabal akbar lu neex a ngi ñëw